gën a bëgg sëriñ Babacar defal man i mooy sayidi jamila waxul bay waxul woon sayidi jamil fatul ko may fatul woon ko fat ko may fatul woon banque nga tiijaan déggoo sayidi baa nga faas bilaay sa baa nga faas sayidi

I'm not the one سامنا زيدانا لو أنني بيت لو أنني بنصرتي لو أنني بنصرتي لو أنني بنصرتي لو أنني بنصرتي kan moo fi gën a bëgg Seexuna Tijaani. sa Tijaana man gaaña. bu nu Mawlaaya. koo fi gis mu am raaya. seex mu doon waaja. Seexuna Tijaani. yaa qut yaa xawsu. yaa Mawlaaya. yaa wasaru. yaa muntaha amali. billahi. يا قمر سخن التجاني فأنت القدم والكتم المكنى أبا العباس يا حسن الخسار سير تجان سير تجان سير تجان سير تجاني كان مو في كان بقى سيخنا التجاني أبا العباس يا كنز المالي ويا فخر الزمان بلا مثال ويا بدر يسيع بكل قطر ينير الكون يهدي للجلال هذا قلب عبد ذو التراب يؤمل منك فيدا بالتوالي سيدنا نينا سيخ ومالي غير بابك من ملاذي أيا شيخي فاجبني لي للوصال فسرم الههد للمحبوب شيء أشق على المريد من النساء تمناك الرسول وقال إني مرقيكم إلى سبل المال فأعطاكم جهانا خير الدين به نلنا الفلاح بلا جدال بلا اقتاب نال كل سير فهمه في متى هاتي تبارك الله سبحانه yàlla xam na ne tey bi sax xawul na neex waaye suñ ñu laa gàntal ci yàlla ñii dafa ñëwoon di ma seet si jóge ba Louga Asmalik Diop waaye ma ne ko nañ fi agsi rek ba ba nga gis ma ñu door a dem ñu jóge ba Louga dëgg yàlla di kenn ci xadara bi di oustaz ca Ahibaay Seydi Jamil ca Espagne euh, programme bu fa yëpp moom mi mooy waxtaan première partie bi waaye tey mu woon gane si ma ma ne ko daa am fu ah, dafa war a delluwaat Louga ci ci kanam léegi rek bu ndogoom bu baax a baax sëñ Babacar Dia bu baax a baax. njagam mi koy gërëm tax ma koy gërëm dañoo soppante rek ngir Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour Jamil kooku rek moo tax ñu soppante day nekk ba bitim réew lu mu xat-xat su ma ko envoyé message daf may répondre te njëkk ku ko xam xam ko Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour mu teewal fi nag Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour. moo tax cër bi ñuy jox Serigne Mansour bu ko raw lañ ko jox di sama xarit nekk ku baax nekk ku bëgg nit ku yëg nit tamit xam nga ku ko xam xam ni programme chargé la mais gis nga mu bàyyi ay yiteem yëpp tawal oto ba fii kon jaga yàlla mi am sa fay yàlla na yàlla fay boo demee ba ni Serigne bég naa macha allah xale raw yëpp dañ leen bég naa aw ma lu ñoom aw ku leen ëpp dégg ma rek dina ñaaral yàlla soo demee daal nga ni sëriñ bëgg nañ taxaw ngeen taxawaayam yéen ñoom sëñ Ahmada Ousseynou ak Babacar bëgg naa loolu dama laa sopp rek ngir Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour loolu la rek li ñu soxla rek mi ngi si Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour tant bi tant bi bu amee réussite yàlla ak ñaanam la parce que barki Demba Ndiaye dañoo dem yóbbul ko suukaru koor ñu dem bay génn Ousseynou Thioye mii ne Mamadou Fall toogal. ma toog man ak moom ak Ousseynou Thioye kese si biir saalam mu defal ñu si ñaan moo tax man ak kenn sax lii dafay réussir parce que ñaanu Cheikh Seydou Mouhamadou Mansour la amuñu lu ko ëpp amuñu lu ko sut ku ñu xam moom la ñu xamee ku ñuy dem moom la ñuy demal li mu soxla lépp la nga xam ni soxla na ko si xadara bi man dinaa ci bay sama weewu tànk ak man ak waa montagne ak ñi ci àndal ñëpp ñun Serigne dëgg rek lañ soxla dëggu Serigne Mansour sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla na ko fi yàlla yàggal Ouzin moom lii du ma bàyyi fenn dafa ni woon dafay ñëw yàlla xam na ko mais yi jamono ak calendrier bu chargé moo tax gis na Serigne Mansour kon njaga kontaan naa yàlla yàlla fay ngi am kontaan bu baax li ko Adja Modou Fall waxee rek mu mel ni xam nañ sa. nañ seen occupation waaw ndax yow yaraax yëpp dañ lay bëggee macha allah ñun bu ñu namoo way bokk nga ci buñ ko bëggee te buñ la xamee Aly Diatta mii tax na ñu gën la miin gën naa sopp ndax Aly Diatta fu mu taxaw way rek ñu ne njëga mooy way macha allah di la ñaanal yàlla seen ànd bi fa yàgg Aly tamit nga téyel ñu ko ku baax la ku am kóllëre la wax dëgg yàlla nga téyel ñu ko bu baax a baax kon bu ko defee rek dañuy ñëw directement ci programme bi ah bu ko defee rek ñaari baat ci yonante bi bi ko sërif soobu yàlla wa rahmatullahi taala wa barakatuh ak nit mu ñëwee yaraax nii lay demee programme bi fi ñu yëpp nag moo nuyoo pour ñu fay ma problème la dama wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh na weer mu jege ko géej naa programme depuis Saloum la quatre laa gëjoon programme mu doonoon kañ moor le trois laa waxtaan ñaar ngeen ñaanal ma yàlla may ma wér matul semaine suma yaay soxna Aïssatou Diallo Thierno Mountakha amul mu kala seet si na ma ay beek laa yoroon beek waaye yàlla mu dara tawul dama programme fii ñu ma fi yabal ba pare waaye mu may yow dimanche bi passé nii ci Abdou Aziz defuma fa une heure de temps waxuma tey ma ñëw ci lii nga xam ne bi bi ñu koy jàpp Modou Fall day yëgoog man ci jàpp gi ak bu Abdou Aziz bi ak yeneen yoo xam ne dama ci yeb la rek dew ba ci thème bi ba ci lu ne wala mu woo ma ne ma Abdou su loo ci wax ban thème Abdou Aziz ma ma ne ko xoolal loo def rek après nga envoyé ñu ma xool waaye nag yàlla mu dara tëwul ak ñaani mag ñi ak yéene yàlla may nañu wér ba ñu ñëw teewee lii ma waxoon ne lii duma fekk ci biir suuf dama lay wax déedéet sama bopp ñu ragal yàlla ci wéet ak buñ wéttale ko problème yi ñuy dund nii yëpp xam nga lu ñu ko yóbbee ñàkk ragal yàlla sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si Al dafa wax ne mu ne yow ma xiyaam bu ñu fa teewee mu ne bu fekkoon yàlla day recevoir dëkk par dëkk délégation par délégation mu ne bu Sénégal ñëwee du jóg ñu ne ko lu tax mu ne ngir rëyum pexeem ak neexu làmmiñam mu ne ragal na sax teeru gi leen yàlla di teeru ñu toog ci saison ba moom maanaam ci misaal rek ñu mën a dégg wax ji tablasis li nga dooree dafa rëy ci jamono ji mooy fen fen moom du dara ci ñun mag mu toog tere ñu di ko ñu di ko ñu di ko interrogé muy muy fen ñëpp di ko seetaan ñu def ne loolu mooy ndanu Sénégal wax yooyu ñu di ko toppandoor ci suñuy TikTok di ko dugal ci suñuy statut di ko pikiir suñuy njaboot gis nga gi xam nga pour lan la la'allakum tattaqun kon nañu bàyyi xel loolu li ci topp mooy ni ñu fexe ba bëgg yonent yàlla Muhammad ki suñu jëf bul woy wa laysa nafun ala xubbin bila amalin wa taabi an sunnatil muxtaar tëxtani mi léegi nag dafa bari suñ ne sëñ Babacar nga dëkk maye cinq mille ba dix mille ñu ne sëñ Moustapha nga fotesu ñu ne sëñ Mansour si demel nga ne moom ñu ne sëñ Babacar nga jóg Serigne Touba nga jóg diw nga jóg te ñooñu ñu aw penku nga aw xarf ana mbëggeel gi ci kese la yem li ma taquluuna maa laa tafaluun kabura maqtan inda allahi an taqulu maa laa tafaluun mbokk yi li ñuy génnee ci suñu làmmiñ nunu rek suñuy jëf sëñ Seex Gaynde Fatma nee na wax ko def ko yàllaa ko mën waaye ak jàmm ne war naa lu wax na ko nar ci des mooy dañu am ay wéeruwaay am ay sëriñ lu mel ni man wala ñun ñu bokk ci tariqa cheikh na tijaan yi gis nga tariqa cheikh ay principe la teg waaye jënd mbaxana tijaan pour pour si tijaan yor sa kaala bu sew laal sa parfum dóor sa maraakis fu la foo romb ñu ne taalibe seex nga ne ëskay yëkkati sa loxo laal mbaxana mi te yow laysa min ahli Cheikhuna Tijaani yow xam nga ne bokkuloo ci ñooñu Cheikhuna Tijaani yow doo jàngal Qur'an doo julli doo wax lu baax yaa ngi yàq ay diggante doo walifa doo dem ci géewu xadara ah nañu ci wax na ko Fatima dañ jóor alal ci ci màng bi mu oo Fatima ba mu ñëw yonent liñ ko cërale mu ne Fatima te bintu yaa Rasulullah tànnal lu la neex ci alal ji nga jël loo bëgg rek laaj na ko mu jox la ko mu ne ko waaye Fatima mu ne ko góorgóorlu nga jaamu yàlla te nga ragal ko te nga jëf sa téere jëf ju jëfal ko mu ne ko yow ma la xiyaam amul benn bakkan boo xam ne man yonent bi dinaa ko gàddu lu dul yàlla gàddu loo na ma ko Fatima yow ma la xiyaam yaay taxaw la yoog yàlla waaye dem Fatima la yonent bi wax lii ana kon ñun beneen bi ci des mooy fab nañ shérif yi teg leen suñ kaw woy jur yi fab nañ sëriñ si teg leen kaw woy jur yi te mbokk yi bu kenn nax kenn wallahi wa sharafil quran su ma toogee ci sumay lawraat balaa maa xalaat suma bopp xalaat Mouhamad Fadel ak Aji Awaat samay njaboot gi ci des te ni ma koy mu jaar ci man noonu la ko beneen sëriñ di defee mu jaar ci moom waaye kenn ku ne ci yéen seen woy jur suñu toogee lu ñuy ñaan mooy yéen ni ngeen def ba baax kon ngir yàlla kii saraxu noonu ko wuyu nañ fonk suñu ay wayjur waaye yow bu Cheikh Hadj Malick dafa waxoon ne mujjanteeli jamono ñett ñooy gën ñett mu ne alal ji sa poos mooy gën sa doom ñu ne ko lu tax mu ne doom joo ne rootal ma satu la mu bañ fompal ma néeg bi mu bañ defal ma nangam mu bañ defaral ma lii lépp loo sant doom bi mu ne papa may ma max bi papa may ma làmb ji papa damay dem daayira xaaral mu ñëw papa nangam lépp mu bañal la mu ne loolu nga di ko def ci sa xaalis mi naan mi di fompal di la baleel di la fompal say dàll muy foon loxo bi nañ sëriñ bàyyi loxo bàyyi di ko jur fóon gi ngay fóon loxo keneen bàyyi sa baay yaa ngi njaal nañ leen fonk suñ ay waajur gis nga baay billahi ladi laa ilaha illa kenn du donn bàyyi jàmbur ci miraas loo mën a mën a xëccu ak loo bëgg bëgg nit keroog biñ jóori alal ji miraas doo ci jël dara jóor di ko miraas ñun ñëpp ñu jël suñu wàll muy Seyduna Muhammad abaay Seyduna Muhammad wax ma ndax benn sëriñ am na lu mu fi bàyyi ñuy miraas ñu sédd kenn ku bokk ci njaboot bi lu ñu dañ koo may fonk leen suñuy waajur jox leen gëdd waajur yi xormaal leen xam ne lu ngeen am ñu ne liggéeyu nday añu liggéeyu bàyyi reerub doom liggéeyu doom muy ndékkib doom gis na sa doom yi ëllëg bu ñu ñëwee gis nga li ñuy njëkk am noonu ci suba teel si biñ nekkee xale jàpp nañu seen papa moom ñëpp loolu mooy ndékki ci say njaboot gis nga loolu doom ju nekk sa bàyyi la koy liggéeyal mais boo demee ba toll ci buntu boo fëkk mu tijj sa yaaya la ko liggéeyal yow doom nag liggéeyu ndey mooy añu doom liggéeyu baay mooy reeru doom doom ju fan ne sa baay góorgóorluwul liggéeyu doom nag mooy ndékkib doom sa waay fondement bi mooy ndey merci beaucoup te dëgg la baal ma ñëw mu dafa li nga wax tey mu war a wax fondement bi mooy wayjur bu baax xam nga lu tax wal baladu tayibu yaxruju nabaatuhu bi idni rabbihi walladi xabus laa yaxruja illa nakida gis nga suuf su tee gàncaxam lay génnee kan mooy génnee gàncax yaay yaay muy imbi yaay moo ëmb mooy suuf bàyyi mooy bâtiment bi taxaw nii mooy tax tabax bi rek sa bàyyi moo lay def ngay terrasse mbaa ngay étage mbaa ngay tuile mbaa ngay léegi ñax a ñëw waaye yow sëriñ bi bu la gënalee sa ndey gënal la sa baay awuloo yoon sëñ bi maa ngi leen di ñaan lu ngeen am di ko yóbbul shérif bi wala ngeen di ko yóbbul sëriñ bi yàlla jox leen seen waajur yi ba noppi dafa am ku romb yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa di jooy jooy yu métti yonent bi kii lan lay jooy xaj Mansour maa ngi lay fay yàlla na bés bi réussir le 6 incha allah caam ku baax muy jooy yu nit bi ne kii lu muy jooy ñu ne ko yaayam moo gaañu mu ne ko jooyal a jooy ki la yàlla doon rusee moo dem tey kon yaay lan lay teg yaay muy ki la yàlla di rusee waaye ñun suñu yaay lañ gën a yëpp paa bi dafa naqari deret mère bi neexut a nekkal te yow yaa ngi fekk shérif boo xam ne moo gën a naqari deret wala nga fekk sëriñ boo xam ne moo gën a naqari deret mais nga mun a digérer kooku mun a am tolérance ci kooku mais munuloo koo am nag ci sa ñaari waajur mbokk maa ngi leen di digal tey dénk sama bopp yi bu leen nangu mukk dem ci dibiteri yi lekk lu baax bàyyi sa ñaari woy jur bu nangu mukk di sol yére yu baax bàyyi seen ñaari woy jur bu leen nangu mukk di bu baax bàyyi seen ñaari way jur baax moo ma daanal baal ma Mansour baal ma Moodu yow dama foog ne da ngay footi dañuy dëggal góor gi keebaa la tudd keebaa Saalum la dëkk xale yi yëpp moom la ñuy xale dëkk ne Kéba papaam nekkul ku am mais papaam dafa góorgóorlu ci Kéba njàng mi mu sonn ci léppam mu sonn ci mais Kéba bu jógee Dakar ba ñëw Saalum ndeysaan ñëpp dañ koy xale yi jigéen ñi tam ñu ñëw dëkk yëpp dañuy ñëw di ko fréquenté mais seen kër dafa dagg benn buntu gannaaw ci kër gi xam nga lu tax mu ne papaam ni mu mel mérité wut ku jur papaam ni mu mel mérité

góor ñi bari bari man maay sa papa Kéba présenté sa xarit yi ne man maay sa baay Kéba looy bañ ci man Kéba dama la ngénte jox la tur jàngal la yar la sonn ci yow ba nga mel nii mu ne Kéba looy rus ci ne man maay sa baay Kéba nii ma mel yàlla ma ko def waaye mooyu ma yàlla naanuma sàngara njaaloowu ma Kéba fi mu sëgg mënut a gars yi naan ko waat kii ñu laaj na kii nga ne kii benn père la ko ne ci seen kër ndeke mooy sa baab xaritam yëpp moom lañ wiccee seen loxo ci ndab gi jóg nuyu góor gi ne ko baal ma àq ñii di ko jox xaalis sëñ bi mu waay mën a mel ci ñun sa way jur man de képp ku may oo man wala moomu mën a kañee wala nga bàkkee ma ko billahi li nga xam ne man shirif yan saat bu rek la am mooy suma sëriñ ci diine ji mooy suma sëriñ ci tariqa bi lépp lu ma ko defaloon dafa fekk yàlla tegut ko ci suma loxo bi ci moom ak suma waajur wu jigéen Abdou Aziz rawante ay doomi bàyyi ci ndab li la ku sa loxo bokkatoo sëñ bi nañ jàlloo ci suñu xel bu baax xam ne li àddina la day ëlbatiku wa daxru fii tëxëyur wa tëxëllub day soppeek day benn waxtu wu ne ñu joxaat cër suñu waajur yi am na ñoo xam ne bu ñu toogee place seen waajur yi woo leen dañuy dëppaat téléphone bi naan ko continuer di waxtaan bu ñu leen laajee foo ne au lieu que ñu ne maa ngi yaraax ñu wax foo xam ne boo leen bëggoon a yónni dootuloo leen yónni sëñ bi bëri na ku tardé waajur a ko tardé dama doon jàng daaru ridwaan am ñaari xale ñuy focc buntu teen dañuy forak kenn ki nit ñi rek nekk na ci biir teen bi boobu téléphone yi commencé na xew am ku yollee ko ci gannaaw rek woo papay xale bi ne ko ah neexul de waaye nag soo mënee jege si mun ngaa jege si mu ne ko lu xew mu ne ko soddoom diw Habib mu ne ko waaw mu ne ko mi nga joxe woon ci sëñ Habib Touré bu Arafat Daaru Ridwaan la jamono jooju bu Arafat mu ne ko mu ne ko xale bi de moo daanu ci teen yàlla dogal na lu soob ci moom góor gi ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun fekk yaay jaa bale mu bëgg ko nga wax mu tëw ronga ñu daxante mu sëgg lu yàgg siggi mais ay daal du weesu bàyyi dee na boo soxna si mu ñëw mu ne ko toogal mu toog mu ne ko jaam day nangu dogal Moodu Habib lañ wax ne moo doon fa bind teen bi ak moromam waaye dafa daanu ci biir mu ne ko nag waaye génneeguñ ko mu ree nañ jëkkëram ne ko nijaay mu ne ko naam mu ne ko dalalal sa xel mi te xam ne man suma doom du dee dee bu xaaraan gis nga xoos dafa xoos yaram bi nii rek xoos maanaam boo xoosee weex weex bii mu ne nijaayam mu ne ko su génnee am tache tache bu weex bii ma tas suma sëy bi dem ñibbi xam ne lépp lu ñu yàlla dig neen la ak li ma leen liggéeyal